alors euh, euh, léegi nii bi may euh, démarrer plateau bi. Mhm. dama gis Abdou Mbow xam nga fan yi am na mhm. xale yu ñàkkat seen bakkan. ci mhm. drame immigration clandestine bi. xale yi ba tey ñu ngi dem Nicaragua. ñi doon lié. la problématique de l'immigration clandestine mm-hmm. à, au, au manque d'espoir mm-hmm. euh, à chaque fois on leur dit c'est mm-hmm. plus profond que ça parce que ku nekk Sénégal am magasin biir Sandaga dajale onze millions jël ko dem euh, Nicaragua kooku c'est pas un manque d'espoir peut-être que les anthropo les anthropologues et les sociologues war nañ gën a mën a gëstu question bi pour xam lan moo animé jeunes yi. Mhm. Euh, le député Abdou Mbow président du groupe parlementaire euh, Benno Bokk Yaakaar à l'Assemblée nationale. Mhm. Euh, dafa adressé une question écrite au premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. et d'ailleurs mu naan kan maintenant que vous êtes au pouvoir. dites-nous quelles sont les solutions que vous allez apporter. au drame de l'immigration irrégulière. alors lan la la mbir moomu di inspiré. Euh, li may inspiré euh, mooy d'abord bi ngay présenté am na benn maître mot euh, mooy structurel gis nga problème mu immigration clandestine bi nekkul loo xam ne jamono ji rek moom moo ko indi mais dafa nekk lu gën a xóot loolu dafa structurel xam nga tax mu structurel dafa njëkk a laloo ci maanaam déstructuration économie bi maanaam sunu koom dafa dem ba jamono koom boobu ni mu waroon tënkoo ba nit war a mën a liggéey am koom amatul xam nga tey ku jël onze million mu leer ko ne tey parce que lu muy wuti xaalis teraanga mu leer ko ne parce que maa ngi koy wax ci livre bi mu leer ko ne tey bu jëloon onze millions yooyu investir ko dana am jeexital boo xam ne xëj na mën na cee jógee dem def benn bon boo xam ne il se retrouve avec un benn chiffre d'affaires de quinze million wala après vingt millions kooku bu ko leeroon ne da am bénéfice def ciy génn amaana du def loolu euh, moo tax euh, ñun li ne moom la ñuy indi ñun moo di dañuy jéem a fexe ba économie bi ñu lëkkalewaat ko ndax bi nga xamee ne dañoo ñëw ñu indi ñu def par exemple ay accord de pêche yoo xam ne li nga gi li nga xam ne moom la pêche yore woon ci économie yu ndax bu ñu fàtte ne ci économie dafa toll woon foofu télécommunication yi ak arachide bi ak pêche ak tourisme ñoo ko doon tiire bi ñu demee ba pêche bi ak li muy jël ci employé ak li muy générer ci ay sources de revenu ñu dem ba mënatul am lu ñu seetlu ñi daan napp ñoo mujj léegi di jël gaal di ji yeb ay nit di dem d'abord ñoom di dem jéem a dem tukki yi parce que géej gi joxatu leen beneen bi it ñoom ñoo doon convoyé seen gaal yooyu ñu daan jël bu ñu demee ci géej gi mën a napp am xaalis gaal googu bu ñu ko jëlatee yóbbu ko géej ñu ci am dara ñu jël gaal googu di ci yeb ay nit clandestinement évidemment parce que ab réseau la di yóbbu nit ñooy ñuy dem bitim réew pour jëmpawut teraanga mu tombeek nag nit ñi di gis ne ku dem foofu ñaare boo ñëwee dangay am teraanga boo xam ne amaana boo fi toogee doo ko am loolu nga xam mooy te économie déstructurée muy économie boo xam ne dafa extraverti ndax li ëppoon li doon jox maanaam boo seetloo secteurs yi nga xam ne moom nga mën a jël ñu bëri ci nit secteurs yooyu dañoo dem ba dañoo naax saay muy wàllu mbay mi muy wàllu càmm gi ñu waroon cee sukkandiku pour créer de la valeur ajoutée de la richesse maanaam génne koom ci yooyu bi nga xamee ne loolu amut léegi la mu jur mooy dañoo am benn économie boo xam ne dafa spéculative économie boo xam ne ci wàllu xaalis rek na am mais amul laltaay bu dëgër bu ko wara a mën a téye. mais xam nga euh, drame bi mhm. euh, bi mu démarré ba ba ba ba ñu taxaw def diagnostic bi. Mhm. dañoo appliquer ay solutions ci la ñu commencé indi financement. Euh, di subventionner euh, gaal yi. Mhm. pour que nit ñi mën a am seen euh, gaalu bopp. Mhm. tey ji tey Sénégal ci wàllu accord de pêche Mauritanie bi ñu daan amal problème ak Cap-Vert. Mhm. diplomatiquement réglé nañu ko. ba suñu mool tàmbali di am. di am les les les licences de pêche. Mhm. solution bi ñu ci jéem a indi yëpp. Mhm. Ah, ñu ñëw indi ay financement mhm. di leen jàppale pour ñu assoir seeni PME seeni mi ñoom ñu mën a toog ci réew mi. mais solution yi ñu ci indi yëpp dafa taxul xale dafa taxul xale yi bàyyi bu seddaay jotee ba nga ba ñuy am espoir ne drame bi arrêté na. bu tàngaay commencé rek nga gis leen ñu ñu ñu ñu ñu tàmbaliwaat. est-ce que pas plus profond que parce que depuis 2007. Mhm. sous Abdoulaye Wade. Mhm. solution bu nekk. Mhm. indi nañu ko fi pour arrêter drame immigration irrégulière bi. man nag jàpp ma ne solution yooyu solution am na parce que yooyu nga gis boo évaluer l'effectivité de ce li ñuy séntu woon maanaam jeexital bi ñu doon wuur ci yooyu ñu teg ñu tuddee ko solution jeexital yooyu moo ci amul dama lay jox benn misaal boo jëlee financement yi nga tudd. financement yi tey su ma la nee li ñuy def ci milliards bëri na bëri waaye boo xam ne tey koo ko wax du ko gëm mais boo jëlee ñooñu nga xam jot nañ koo am doo gis lenn lu lu nekk impact loo mën a wax ne kii de financé woon nañ ko nangam mu am jeexital man bi ñuy financé par exemple bi ñuy créer fonds yooyu yàlla dogal na maa ngi fi muy ay fonds national de l'entrepreneuriat féminin ay euh, ay ay fonds de la jeunesse euh, ay fonds de lan de de de crédit pour les femmes fonds yooyu yëpp boo leen jëlee nga xam tey boo jëlee fonds de crédit pour les femmes par exemple nga xam da daan financer lu tuuti ba ay un million yu demee noonu. da da demoon na sax ba cinq millions. su Moustapha Diop voilà waaw ba cinq millions. après am beneen fonds de crédit de promotion pour les femmes jëlee cinq ba am ay trente millions mais malheureusement. tey boo demoon di topp nga xool ñan ñoo ci am entreprise par exemple ñoo ci fi am am ay financement 30 millions tey pour nga gis entreprise bu ñu ci taxawal lu ñu ci taxawal mu continuer di dem ba mu générer euh, croissance. daanaka beneen bi it mooy fonds yu ci bëri ay revolving la tey dama lay jox benn misaal su fekkee ne état day jël par exemple 5 milliards mu def ko ci financement parce que ñun loolu la ñu loolu solution boobu nag la bëgg indi moo yi lu lan lan mooy dëgg-dëgg la tax loolu réussirul Euh, boo jëlee tey te ren nga def 5 milliards 5 milliards yooyu da nga koy financé anne prochaine nga defaat 5 milliards troisième année bi war nga mën a wàññi parce que la nga doon financé yu njëkk am na ay recouvrement yoo xam ne day ñëw fekk ci leen mais boo seetloo li ñuy def chaque année la même chose la ñuy def ana donc lay retour retour retourné amul nga dem ci ñi nga xam ne lañ ko doon jox. critères ya waroon tax ñu jox leen ko critères yi nekku ci moo tax problème immigration clandestine dafa am loo xam ne dafa structurel ba fekkee ne dafa structurel mënoo am ay solution immédiate tey su fekkoon na ñun dañoo ñëw ñu dawal ci baadu critères yi ma lay wax mooy lan nañ ko jox ñoo xam ne dañuy nekk dans la production solidaire Nations Unies ci boppam nee na économie sociale solidaire rek la ñu mën a atteindre les objectifs de développement durable te foofu it ma wax la benn affaire tey histoire wane na ne expérience wane na ne feeg nit ñi yaa ngi leen di dajale maanaam individuel yooyu boo leen dajale woon tey financé leen ci benn activité boo xam ne dañ cee am ñoom ñaare soo ko defee day réussir ndax mooy le cas de Aftour transport bi ñu ko defee dafa réussir mooy association coopérative yooyu nekk ci transport parce que chaîne lay doon dégg nga financement solidaire boobu la muy jur mooy sénégalais quand bu nekkee ci mbooloo dafay am jom. day am kersa. ah day am kersa. na am day am kersa tey moom bu xamee ne parce que aftu la chaîne bi mooy tax ñëpp mën a am oto su kenn dul remboursé du ñu mën a continuer kooku dina am kersa ba loolu du am donc bu ñu nekkee bu ñu fulaalee production solidaire bàyyi les financement individuels. parce que luubal yépp foofu lay amee parce que financement solidaire avantage bi mooy dafay nekk loo xam ne day permettre ñëpp ñu mën a am tratabilité gis li ñu joxe day am benn contrôle entre les membres du GIE de l'association ou de la coopérative benn mu nekk ñoo xam ne dañoo nekk dans la production dans l'économie l'activité économique maanaam ñoo xam ne dañuy liggéey parce que gis nañ ay financement yoo xam ne ña ko jox liggéeyuñu loolu moo waral ñoo xam ne dañoo def 54 milliards yi ñu ko jox ñëpp dañoo dem ci géej gi des fa alors bu fekkee ne nekk na loolu am na ñu jëlaat ñun orientation beneen critère bi mooy ñoo xam ne dañuy nekk ci secteur bu connexe à l' agriculture au sens moo xam pêche la moo xam agriculture la moo xam élevage la bi mooy ñu nekk ñoo xam ne dañuy nekk ci secteur buy tax parce que dafa am modèle économique boo xam ne projet bi moom la indi muy la type boo fàttalikoo président Ousmane Sonko juumu ma de président Ousmane Sonko parce que ñun Pastef dañu am chance am ñaari président le président du parti et le président de la république. mais le président de la république dafa war a rey le président du parti mënu leen am président de la république président de la république moom la ñu war a wax président yow yaa fi indi débat bi de. non xam nga dama ne boo <laughs> ñu indi le président Ousmane Sonko xaaral débat bi débat bi dafa war a taxaw parce que mooy président du parti. waaw ah. xam nga ñu ngi Pastef ngeen ne ko président. mais boo leen toogee ci plateau yi nekk ministre di wax en tant que ministre. waaw <laughs> le président bi ngeen war a référé. non c'est le président de la république. non dama la ne le président Ousmane Sonko li nga wax la le président Ousmane Sonko il était le président du parti dafa wax parce que citation bee tax mu tudd président Ousmane Sonko président lay wax parce que daf koy wax en tant que président du parti moo tax ma lay leeralal. Hmm. pour bañ gaa yi juum doon bañ nit ñu juum su ma nee président Ousmane Sonko rek ñu xam de notre parti déclaration wax ne ñun. tunu modèle c'est la substitution aux importations moo tax économie endogène la ñuy prôné d'ailleurs bu fàttali ko am na assemblée benn débat bu mu amoon ak Amadou Ba ne ko wax ma lan mooy seen modèle économique Amadou Ba avait du ne ko li ngeen war a def après développer développer mais da ngeen a def la substitution aux importations demal bu ngeen moom ba mu waxee loolu ne ñun loolu mooy sunu modèle économique léegi moo tax quatrième critère bi ñu indi ci li ma li ma li ñu tuddee ñun la stratégie de financement ciblé loolu moo amu doon li fi amoon avant ñun moo tax solution booba xale yi ñu doon financé moo tax bi nga waxee ma ne la est loolu am na parce que mbir toujours da ngay xool objectif bi léegi comme ñoom la taxoon pour xale yi di liggéey te objectif boobu atteindre ñu ko parce que distribution lañ doon def moom laa tuddee distribution séddale dak mooy contraire séddale booy séddale da ngay jox kenn ku nekk sans pour autant nga am looy dàkk booy dàkk nag dangay ngay ciblé quatrième critère stratégie financement ciblé bi moom mooy nit ki nekk ci biir activité boo xam ne dafay connecte à la substitution aux important boo jëlee lépp lu jëm ci économie sociale solidaire am na ñoo xam ne ñu ngi defar ay saabu am ñoo xam ne ñu ngi ci par exemple ñaw tailleur yi xam nga tailleur yi mooy premier métier au Sénégal am ñoo xam ne ñu ngi ci javelisation am ñoo xam ne ñu ngi transformation des produits alimentaires yooyu nag ñuy def moom mooy activités yi nga xam ne day permettre la ñu waroon di importer ci yenn produits dootuñu ko def day on se substitue à aux importations donc quatre critères yooyu tuñ ko defee dolli ci nag ñu am véritablement économie sociale solidaire parce que soxna may mun a foofu la problème bi am